mu leeral wax ne li bëgg ci dëkk bi ak li mu fi tere mhm. bi mu ko defee nag damaa yónni ci ki nga xam ne moom la def muy jëwriñam ci yoon bi muy Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh Abdou Lahad mu xamal ma ne boo demee nee ko ni ma ko defee sama jëwriñ ci yoon bi def ko jëwriñ ci dëkk bi teg lépp ci loxoom noonu laa ko jiite la waat ci mbir mi nee ko lépp tegaat naa ci loxoom ba ma ko waxee ma wax ko sëriñ bi ba alxames sëriñ bi woo ma woo sëriñ Modou Lo Ngabu woo sëriñ Abdou Lahad Ka ak ñu ngi ko seqal wax ni mu ko xalaate ak ni mu ko santaane mu wax sëriñ Modou Lo ne yow ko liggéey bi ñoo yow ñoo ci bokk ndax liñ ci doon rek te xam na liñ ci daa ci jamono sëriñ Saliou ba dëgg kon nag ndigal la ni ma ko sëriñ bi joxe may yeesalaat naa ndigal ci yow nga taxaw ko di ko saytu na ko daan doxale kon nag sëriñ bi loolu mooy ndigal li nga xam ne santaane la ko kon nag sëriñ Mourou ñu ngi la ci ñaanal ñaanalaa sax lay wax yàlla gën la dëgëral gën la kàttanal ba nii nga xam ne tàmm di ko to léegi mot ñaar ket wala mat na ko dëkk bépp teg nañ seen bët ndax eh, adduna dafa baaxul lépp loo gis muy dox wala mu jag wala mu tegu ci yoon li fi loolu laa nga feeñ rek lay njariñ la doo ko xam waaye bis bu fu teggi koon benn bis wala ñaari fan rek nit ñi dañ xam liy njariñu Safinatou Touba ci dëkk bi commune bi itam ni ko sëriñ bi santaane ci la waxe Abdoul Ahad Ka ne ko comme dëkk bi ci sa loxo laa ko teg na nga woo mboolem chef de village yi ak mboolem délégué de quartier yi ak ñi nga ko war a ànd ak ñëpp ñu maase saytu liggéey bi xam ne ndigalu Serigne Touba la ndigalu Serigne nag képp ku bëgg ko yàlla defal ndimbal te nga am doo fi wax ci jëriñu jëriñu bi nag mooy topp ndigal te xam ne ci topp ndigal ci la jëriñ nekk ndax Iblis kat ñàkk topp ndigal moo ko yóbbu di ko dal te la ko ko teg mooy jëfandikoom xel. moo tax ndigal saa su agsee la gën mooy fexe ba xam ne jëfi ndigal rek mooy la lay jëriñ loolu nag ku ne danga koy tàmbalee ci sow te xam ne wàccu kenn ndax Cheikh Ibrahima Faye daana wax ne liggéey Sëriñ Tuubaa war na ñëpp te du wàcc kenn kon nag na xam ne ndigal li sëriñ bi santaane lu suñu borom santaane la muy yeesal ko ngir bëgg ñëpp di ko def xam na buñ ko defee itam seen bopp rek lañ koy defal di gërëm nag njabootu am Cheikh Ibrahima Fall ci njiital la sëñ Cheikh jëmm ak mboolem njaboot yëpp ak taalibe yi ndax buñ ko tuddee rek mm-hmm. mel nañ tudd nañ mboolem Cheikh Sëriñ Tuubaa yi waaye tudd nañ mboolem njaboot Sëriñ ndax ñoom xam nañ ne bu dee ndigal rek buñ ko waxee mm-hmm. ñoom ñoo ci jiitu yëpp mm-hmm. ndax ku ne ku yaakaar Sëriñ Tuubaa ku ne am nga leneen loo yaakaar wala loo yaakaar waaye ñoom seen dara génnu sëñ ñoom seen yaakaar dafa tàmbalee ci si yow ci sëñ gouverneur mi nga xam ne ñu ngi si door ñëw moom itam maa ko woon ci turu sëriñ bi ginnaaw bi ñu jox joxe ndigal sëriñ si maa ko wax ko mu ànd ak préfet ak sous-préfet ak mboolem chef de service yi ay ci ngir ñoom ñu ko sëriñ bi teg ak ñi ñu koy àndal lépp loo xam ne gis nañ ndax xam ngeen ne naka njëkk ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké da ko jaarale woon ci autorité yi ci ne woon sëriñ saa yi da ko daa fàttali bari daa wax ne siwil du lijjanti moroom siwilam hmm. loolu waral sëriñ bi jiite leen ci ngir bëgg lépp loo xam ne war nañ ko caa taxaw ñu ànd ko ñoom ne ndigal ñu ci ñoom ñu ànd ko ñoom sëriñ Mourou sax ñu leen ci sant waaye rek nañ yee salaatal jàpp gi ak engagement bi hmm. ndax yëg na leen yëg nañ leen rek di ko sëriñ bi waxee taalibe yëpp maase nañ ci jëfe ko loolu nag seen ma rek la hmm. ndax sëñ moom bëgg leen yiw ak àllaaxira rek moo tax mu digal ko